ci procès bi jëm euh, bi ñu nama def suba damay tënk rek tuuti péripéties yi nga xame ne foofu lañu jaar def ci ay jàngat ba noppi wax leen recommandation yi nga xamee ne moom la LACOS defal jëmale ko ci militant yu coalition Sonko euh, président ak ci ay sympathisants feuilleton judiciaire bi nag mi ngi tàmbalee le premier juin bi condamnation bi amee ku ne xam na ni condamnation boobu dañ ko def par contumace baax nañu fàttali askan wi fi nga xamee ne foofu la feuilleton bi jaar ba agsi fi ñu agsi ni condamné ko à ans le 30 août ministre de la justice daal di wax ni mu annoncé le caractère définitif maanaam wax ni àtte bi moom jeex na ba noppi kon président Ousmane condamné nañ ko te amatul éligibilité donc noonu lañ ko rajee ci fii waaye bi ay avocat am saisiré tribunal d'instance bu Ziguinchor le 12 octobre le juge Sabassi Faye àtte jox leen dëgg daa di annuler boobu radiation ba pare ordonné ministère de l'intérieur ne nañ ko delluwaat ci liste yi muy jugement boo xamee ne ak ordonnance boo xam ne sénégalais yi ak bépp euh, citoyen boo xamee ne du monde épris de justice et de démocratie ñëpp rafetlu ko waaye gis ngeen li ci xew état daal di interjeté appel ne ñoom ànduñu ci boobu ordonnance boobu jugement bi nga xamee ne tribunal d'instance bu Ziguinchor rendre na ko noonu lañu teer nañ demee cour suprême cour suprême annulé boobu décision le 17 novembre bi mu ko annulé mu renvoyé wala mu àtte mu renvoyé dossier bi ne dafay dem tribunal d'instance bu Dakar audience boobu nag moom la ñu woote suba waaye jàngat yi ci mën a indi rek mooy ku ne gis na ne acte yi nga xamee ne état mi ngi koy posé boobu ba léegi dafa wane carrément ne bëgguñu président Ousmane ko nekk candidat loolu soxlawul nekk waliw walla xam lu bëree bari ci politique pour xam ni loolu lay tekki ndax ñoom seen yoon ci li nga xamee ne moom la droit wax faalewuñu kenn waaye boo xoolee yenn acteur justice yi acte yi nga xam ne posé nañ ko dafay mën a joxe tuuti espoir pour wane ni ba léegi war nañu mën a wóolu justice sénégalaise ndax am na ci biir ñoo xame ne mën nañu def loo xame ne mooy li droit wax à partir de ce moment là nañu gëm ni ñun ñëpp nañu gëm ni sunu président Ousmane Sonko dina nekk candidat incha allah à l' élection présidentielle du 25 février 2024. ñun loolu la ñu gëm bu loolu amee nag. mu am taxawaay yoo xam ne war nañ ko taxaw suba mooy position lakkos LACOS mu ngi invité bépp militant ak bépp sympathisant bu coalition Sonko président bu fekkee ne yàlla def na nga teew nga teew nga teew ca nga teew ca ca audience ba wala nga nekk ci biti ci salle bi walla ci biti wala sa kër li mu ñuy li ñuy ñaan militants yi mooy ñu ñu ngi leen di appeler au calme nañu ànd ak dal ak teey ànd ak discipline am sérénité bu doy ndax ñun jàpp nañu ni euh, suba incha allah Ousmane dinañ ko jox dëgg te dinañ ko autoriser mu daal di jël ay mu dem jëli ay fiche de parrainage def ni ñëpp candidat yëpp di def candidat à la candidature yëpp di def bu ko defee mu déposé dossier am waaye Lacoste mi ngi wax ni nañu vigilant na militants yi ak sympathisants yi vigilant na kenn ku ci nekk vigilant te nekk te déglu déglu li nga xamee ne moom moo jóge ci coalition Sonko président coalition Sonko président nag démembrement bu lakos la donc na ñëpp xam ne lépp loo xamee ne jóge na fi rek na na na wóor kenn ku ci nekk ne président Ousmane Sonko ma ko wax donc kàddu yooyu lañ ma waxoon ne naa ko wax jëmalee ko ci militants yi ak ci seen sympathisants yi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di jox rendez-vous nekk ñëpp suba te salle d'audience bi may mën a tudd fii muy salle 4 en France asalaamaaleykum wa rahmatullah merci coordonnateur foog naa ni dangeen sargal jigéen ñi rek moo tax nga jox ma kàddu may lépp lu ma fi mën ci wax mënoon ngeen ko wax doyen maa ngi lay sargal di la nuyu di jéggalu rek di wax ne ci waar bi lañu nekkoon ndax euh, coordonnateur man gisuma euh, lu nu lu ma mën a wax fii lu ngeen waxul parce que yéen ñëpp ñi toog ci taabal bi maa ngi leen di jaajëfal di leen félicité ci parrainage yi ni ni ngeen ci sóoboo ak ni ngeen ci demee ah, gis naa sax euh, président Birame Souleye fële ca Thiès mu dem bay gàddu ay baafle euh, ñu boole ko ak euh, cawaxte ak mbégte boo xamante ne jéggi na dayo parrainage yi nag comme li ma ko waxee ci tàmbali bis biñ koy tàmbali dafa nekk ay teraanga yoo xam ni Sénégal yi dañ ko dencaloon président Ousmane Sonko yéene ko ko ba tax bi ñu tàmbalee ba léegi euh, safewul parce que jotuñu woon suñu ay fiche ñu ku nekk yaa ngi ko takk yaa ngi ko denc fi nga xam ni foofu nga ko làqoon ngir moom képp waaye bi ñuy jiixi jaaxaa ba wuj batiku mu jox ñu numéro nañu dem leen ngeen jëli 111 keroog nag la pare naa safe donc loolu maa ngi koy jëfalee askanu Sénégal di leen ci remercier ndaxte gis nañu nit ñu dalalee ci seen kër yi dalal ñu ko ci seen place yi dalal ñu ko ci seen biir euh, ci mbedd yi ak teraanga yi nga xam ni boole nañ ko ci jox ñu ko loolu nag ku mu doyul ci mbëggeel dara du la doy loolu tax na ba ñu comprendre lan moo taxoon en réalité président Macky Sall bañoon jox président Ousmane ko ay fiches parce que bu fekkente ne joxal leen ma ko Bassirou kese coow lii yëpp jog ci kon buñ ko ne woon joxal leen ma ko Ousmane Sonko xaw ma kon naka la réew mi di def tëddee ndax gis ngeen ba démb rek moo ci mujj fële ci parcelle nga xam ni maire bi dañu ko jàpp jaay ko doole tëj ko Jamil Sané gis ngeen mbokkam yi ak waa parcelle ni ñu génnee def ay manifestation yoo xamante ne macha allah yu mucc ayib la def ko nag sur toute l'étendue du Sénégal donc sénégalais yëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di remercier ndax wane ngeen seen pas-pas ci sunu candidat wane ngeen itam seen kóolute ci moom parce que daf leen ni waa ji rek la ngeen topp loolu loolu nag na gën a dëggu tey na ngeen gën a nekk en alerte ndaxte nag dafa am ci lu ñu jëm ndax ci lu ñu jëm mooy teraanga yu boroom moom ñu ne ko doo ko nangu mun a joxal leen ma ko diw ngeen yëkkati ko jox ñu ko ñu jox ko Basiru ah da ngeen di ànd ak ñun nag ànd ak ñun ci fulla ak ci fayda ànd ak ñun nag topp ñu parce que nit nag boo ko joxee yóbbante da ngay fexe yóbbante bi egg fa mu jëm yóbbante bii ngeen ñu jox xayma gu ñu ñaata la nag dinañ fi ñëw ne leen ñaata parrain ngeen ñu jox te ñun bu soobee yàlla du ñu yee benn néew di leen wax 3 millions ki 4 millions nombre bi ñu jot rek dinañ leen wax nombre boobu bu ñu ñëwee nag ba ngeen jox ñu seen ay na ñu am leen joxal leen ñu ko Bassirou bu ñu demee nag ba Macky sàll ne Bassirou du dugg usmaan Sonko du dugg su boobaa nag ñun dinañ leen delloo waat seen kàddu nag nañu waxante dëgg ñun ñëpp nangu nañu réew mi réew démocratie la dimanche dañuy voté ku ne àtte sa moroom ñu fal folli loolu la Sénégal xam cinq février nag bu fekkente ne loolu képp moo war a am sant nañu yàlla suñuy xel dal na ndax xam nañu suñu candidat moom mooy gagné ndax yéen ñu ko wax yéen a ñu ko won ndax ñun bu ñu moytuwuloon tuuti dinañ jabeet ci campagne bi ndaxte fu ñu romb kafe ngeen may ñu fu ñu romb ataaya ngeen may ñu fu ñu romb jus yu neex ngeen may ñu ay xaale bañ a bàyyiwu leen dara xiifuñu benn yoon toute la journée sénégalais dañuy yët ak i teraanga waxuma la nag ak xaalis bi ñuy jël duñu ko jox kon won boobu ngeen ñu won ne sunu candidat ngeen àndal moom ngeen safoo moom ngeen bëgg di ko feccee di ko wonee di ko fanaanoo di ko yendoo kon won boobu yéen nag yéenay ànd ak ñun sàmm ko ba yóbbante bi egg ca loxoy boroomam bu fekkente ne nag élection yooyu président Macky Sall nanguwul mu am kàddu gi dafay mujje ci yéen rek ndaxte li jiitu mooy dëgg li mujj mooy dëgg te président Ousmane ko daf leen waxoon ca njëlbeen ga sama candidature ci seen loxo la dépendre ëllëgu Sénégal ci seen loxo la dépendre tànnal ngeen ma seen bopp moom nee na tànn boobu du am te ba tey nag loolu sotteegul ndaxte suba war nañu delluwaat tribunal tribunal nag bu ñu fa delloo suba ni ñu dégloo woon keroog la 12 yendu yañ fa yendu woon bàcc yañ leen fa bàccoon loolu kese mooy amaat le 12 mooy amaat suba leneen mënta am ndaxte nag justice mënul nekk. justice bu Ziguinchor ak justice bu Dakar ñu ne ñaari justice te déedéet benn justice moo am tribunal buñ ko ti tëggee même justice moo war a waxaat justice bi waxoon Ziguinchor moo war a waxaat Dakar kon bu ñu demee ba nga xamante ni suba yéen yéen a jël seen kàddu jox ko président Ousmane ko moom mu jébbal ko justice justice wax ko jox ko dëgg suba dañ koy attewaat audience publique la nag fameuse salle 4 salle boobu mooy saal coupe-tête élimination de candidats salle boobu la ñëpp jaar saal boobu daal mooy guillotine ci yéen nag lay des sénégalais ñuy xool ndax salle boobu dañuy accepter suba bu ngeen xëyee ni ngeen fa demee woon ci procès de farce bi amoon du fa te looloo gënoon métti ndax loolu ay sos la woon ngeen dékk ko tout la journée presque bi yéen ñi ñëpp vous êtes invité audience publique la suba teel ñëpp mën nañ dem classe politique bi les amis les parents les sympathisants de Ousmane Sonko ñëpp sont invités dem suba ca procès boobu toog déglu xam lan lañ ñuy wax ndax jàpp nañu ni si le droit est dit notre candidat a déposer ses fiches dans les jours à venir comme tous les candidats si le droit n'est pas dit mbir mi dañ koy delloowaat ci loxo sénégalais yi ne leen yéen yéen ay décider donc loolu moo tax ñu demande tout le monde na ñëpp rester vigilant na ñëpp taxaw na ku nekk sàmm sa parrain parce que joxe parrainage ak signature ak soxla 1000 francs 2000 rek dem toog jàpp ni wàccoo nga ak mbir mi sottiwul da ngay topp sa parrainage parce que sa bëgg-bëgg la ndax parrainage mooy bëgg-bëgg mooy kii laa bëgg tànn kii laa bëgg a choisir kii laa bëgg a voter buñ la ko xañee la ki ko xañ da am fulla gu toll ni bu la xañee tànn nga yow tamit nga xañ ko tànn ndaxte nag nappaate gi dafay dafa fa bëgg a bëri bu leen sëqat bu ngeen yëngatu bu leen manifester kaw day am démb gis nga manifestation yi am ci Sénégal ban kaw moo fi am ay bongo ki lu ne am na fi Sénégal yi génn manifester y' a pas de problème faut pas qu'on rentre dans cette psychose là de foog ni bu ñu génnee ci mbedd yi rek kawoo euh, dafay am dara du am Sénégal moom mooy moom mooy gagné ma yemale ko foofu xam naa ni. xam naa ni tey bu ma ñëwutoon euh, fii dina xaw dooy waar parce que man kese maa fi musóoru ndax ngeen musóor gi ngeen gis. am na honorable dafa périgu man maa fi musóoru te musóor gi ma musóoru dafa am ñaari ñaari message ndaxte xam nga musóoru bi ko gis di nga xalaat Palestine. waaye di nga xalaat itam. wax yi ñàkk xorom yi nga xamante ne ku ne yaa ngi ciy jot sa wàll ah te ñuy wax sénégalais yi ne leen kii di usmaan Sonko de amati na ndam. ndaxte boo fekkente ne nit ki yaa ngi koy sosal muy dox nga koy sosal mu feebar. ñu tëj ko kaso nga kon di ko sosal te heure boo ko sosalee sénégalais yi ñun suñu solu rek daanaka communication bi yéen bu ma ñëwoon fii toog waxuma dara sax xam ngeen ni communiqué na kon nag xam ngeen ni ñun suñu candidat dafa neex a ànd donc euh, loolu moo tax ma xam ne gis naa Dame Mbodj def na ci émission bu am solo mais moom amul musóor bi donc musóoru jigéen ñi ñu ngi koy delloowaat jigéen ñi di gën a remercier jigéen ñi ci taxawaay bi ñu taxaw ci parrainage bi di leen jaajëfal di itam nuyu suñu candidat di ko wax ne ko na dalal xelam ñun liñ koy laaj moom li ko sénégalais laaj rek mooy mun a ci jàmm ñun incha allah ñu ngi koy déglu ñun ñu ngi koy topp bu subaa dinañ déglu lu justice wax waaye bu loolu weesoo ñu koy déglu te nopp bu baax bi lañ ko jox te xam nañ ni tànn bu baax la ñuy tànnal te bu soobee yàlla fu mu joxoñ rek ni ko ñoom kii waxee fu mu fu mu joxoñ foofoo foofu la moom rek la ñuy topp waaw ni ngeen koy waxee man moom ngeen man ngeen di topp man it moom lay topp kon ñun ñëpp ñu ngi koy topp jërëjëf